lan moo xew événement bu mag le 19 décembre diggante Boy Niang ak Tapha li Wolof Njaay di naan loo bëggul mu yegsi rek bu ko utal bis tey rek tey la samedi 18 avant combat dañu ñëw fii pàkku lamba biir Pikine xool fan sa Boy Niang fan sa Tapha Tine xala ñuy waajale combat kon Mansour ayca góo góo góo ñu xool naka la asalaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay noo gisee Boy Niang Tapha Tine Boy Niang waaye loolu du loolu du xam dama loolu du làmb Boy Niang dama kaa xam depuis xale ba léegi depuis jamonoy mbapat waaw ma fekkee lu ak arène tamit. muy bëri Tapha Tine. mbër mi nga xam ne bari. Hmm. moom mu ne xale mu wàññi poids na nga gisee combat bi. wàññi poids bi li mu wàññi poids moo xam ndax yàgg dafee may poids lourd boo ñëwee muy bëri dof dafa wàññi poids dafa wàññi poids dafa wàññi poids lourd dafa wàññi kii am daan dof jël bu rëy kon muy bëri Tapha Tine kon bu wàññi poids am loolu jaaxaluñu ndax xam nañ suñu qualité mbërul. loo koy conseil mu bëri. li mu koy conseil ah man boo ñëwee leen li mu koy conseil ba léegi depuis mbabat ba léegi jamonoy arène daan rek bu jeexee rek jeex na wóor na yàlla. nga ma ne bu jeexee rek jeex na. man dégg nga salaamaaleykum nee na nee na bu jeexee jeex na man ba léegi dañuy dox ah. ah. garaaw da ngay liggéey amul problème. amul benn problème mais nag li ma koy conseillé bi muy bëreeg Zos dafa daw ba kii wàcc Gaston Mbengue wàcc di wax ñoom ngir yàlla la taxaw donte day ñàkk sax na rafet quoi. boo ñaa loolu lay bëree. boo ñaa koo ni. curux carax lay bëre. mais man man jamono xale la woon. dégg nga mbër ñàkk te supporter duñ la mere. parce que ni ngay ñàkkee mooy rafet. mais taxaw bëreeg zos ba amateur yi mer Gaston Mbengue wàcc wax moom te dañ koo daan yooyu daal na ko éviter. non fawul ma ko sax mais damay def sama analyse rek damay def sama analyse rek quoi. sport la nag daanaka défaite victoire yëpp ànd jërëjëf. <laughs> Eh, maa ngi Pape Labé Mansour sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay te tur bi Kara lañ koy wax. loo gisee bon combat Boy Niang Tapha bi daal li ma ko gisee instant bi du leen ñun ay bool-bool lañu Tapha Tine la ñuy supporter mais li ñu bëgg mooy bu jour ba bu ñëwee bu mu bëree comme ni Boy Niang di bëree dañu bëgg maanaam euh, lamb ji mu jël ko au waaw na ko jël au parce que Boy Niang xeex bi da koy wax mais gëmu ko xeex bi da koy wax mais gëmu ko Tapha Tine su ñëwee na toog ci ay tànkam poids lourd la parce que poids lourd boobu mu doon buy song rek. na song song bu leer quoi ñun loolu lañ koy conseillé di ko wax ne waa Pàq Lambaay gépp instant bi ñun ñoo ngi si ginnaawam ñun. ginnaaw kan ginnaaw Tafatine. te boo ñëwee dëkk ñun deret deret du bool bool yor. fii teraanga moo ñu fi indi mais lu ñu am dañ koy yóbbu ñoo ngi si ginnaaw Tafatine te li ma la wax ni boo si wéree dara nga dugg si biir pàq bi suba rek lañ yàqamti instant bi pour l'instant. bilaa ah. instant del lañ koy def incha allah. nee nañu dugg ah dañuy dugg. ticket cherul. 3000 la 6000 20000 50000 ah. man xam naa man loolu saay dem. champion maa ngi nuyu. ñu ngi lay fay lu bëree bëri. loo ah combat la comme combat yi fi doon am yëpp rek comprendre nga ñu ñaanal suñu boroom ñu dugg ci jaam génn ci jàmm rek yàlla def ci taw féex tamit comprendre nga noonu la demee quoi. boo fara bon Boy Niang sama gain la. dafa sama grand la sama mbokk la. Ah, ah, ah am amul lii am amul amul nga ne da ngay tafar fenn. <laughs> waaw waaw noonu la demee rek xam nga tamit comme nu mu fa demee yaa ma gën a xam du lépp lañ mën a wax waaye nag mu ngi ñaan yàlla suñu borom tamit xam naa ne ni parce que euh, booy ñaa am na fu ñu jaar sama wóllëre la Tafa sama mbokk la. moo tax am na loo xam ne nii rek dama koy secret dama koy garder pour ma d'accord léegi ban message ngay lancer ñaari mbër yëpp. waaw di leen ñaanal rek xam nga ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilah ñu xam ne tamit lu ci mënti xew tamit sport la rek te lépp tamit Sénégal la yaa ngi dégg ñu gérer rek xam na tamit am na ñu topp seen ginnaaw comprendre nga ñu dalal tamit ñu nekk ci seen ginnaaw tamit di leen fàttaliwaat ne sport la te génnul senegal quoi noonu la. merci beaucoup Mansour yaa ko dégg de nee na la. Hmm? nañ fàttali gars yi gars yi xam ne sport yow koy kaay koo faral kaay bul tiit kaay sama kaay mu ngi doxee yow laay xaar kaay. Ah, maa la fekk si ça va noo def. maa ngi koo faral boo ñaata Tapha Tine. Tapha Tine laa faral. loo bëgg mu def. maa bëgg mu dóor ko daan ko. ah maa bëgg mu dóor ko daan ko. loo wax boo ñaa. boo ñaa bu moytuwul ñu daan ko ñu daan ko Tapha Tine daan ko. xale bi xale bi yow na Mansour. yoonam nekkul ci salaamaaleykum. Tapha Tine nañu wax. waaw ñun ñu ngi ginnaaw Tapha Tine tey ñu ngi ginnaaw tey woon suba. pare nañ def stade rek lañ bëgg pare nañ eh, ah dóor mu daanu ah? ñoo bëgg mu ne ko daanu dóor mu daanu rek lañ bëgg dóor mu daanu kese ah, soxla ñu leen dóor mu daanu waaw dóor mu daanu rek lañ yàlla na ko dóor mu daanu dóor mu daanu rek dóor mu daanu dóor mu nga ne waa pàq laa am nañ fi de ay dóor mu daanu laa fi yegg day dem ci gang bi day dem ci gang bi xool man eh du ma jàll ci laa jëm nga ma jàll salaamaaleykum wala kii daw maa ngi ñëw jarul daw sañu naa sant baax alhamdulilah moo gis Tapha Tine waaw Tapha Tine moom ñun moom ay bawal bawal lan daanaka boo ñu fekkeen toog sax jarul ñu lay wax fun far xam nga fi ñu féete parce que ñun dañoo fier ci bawal bawal gën doon daal maanaam combat rek moom ñun dóor mu daanu rek lañ bëgg incha allah waaw. dóor mu daanu koo manko ñëpp bawal bawal boo song fi loolu moo nekk dëndam kay si tey sax mais liggéey quoi. waaw ñun ñëpp kon ngeen di moom incha allah dañuy ndékki rek bu ñu yeewoo allah sangu dem dem seeraas ndékki dugg stade xaar sunu yaa ngi wax lu nekk Mansour dugg seeraas dem stade Tapha Tine dégg nga ko ah gars na dóor mu daan lañ bëgg. waaw takk ci rib maa dégg nga ma waram saakaande. gars yi mu daan lañ bëgg ah salaamaaleykum maa ngi leen nuyu. waaw lépp jàmm naka mu nag. waajal combat Tapha Tine Boy Niang. waaw ñun par nanu par nanu. billaay walaay par nanu xam nga li muy woote dina ko dëggal boppam. du am cinq minutes xeex bi muy wax. na ko appliqué billaay wala du pousse du passe waa bool gépp ginnaaw sa waay tout ñun pare nan bu doon cinq ñu dugg si booy ñaan na dëggal boppam barke sëñ Bamba am lam am deux minutes na dëggal boppam lan ko ñaan ngi laay war a sol Tafatine pare naa Tafatine pare naa amul lan lu ñuy wax boo ñaa bu xeexee ñu duma ko bu bëri ñu daan ko billaay walaay biyee loolu ci gis kan biyee garaawut ñun lum dañu dag ko ñun ñoo gën a dagg biyee bu cher isaat ñëw Nawbouly bool bool bii bu seet bi nga waxee bool bool tax. yow nga ne. waaw li ma wax mooy ñun nekkuñu fi di nekk di yàgg booy Boy Niang ñun dañ koy ñun ñoo diriger combat ñoo ko moom suñu kombaala la ñu dañoo jël am li ñu am. yaa ngi ñu nekkuñu fii di nekk di wax ay tafatin yi su ba suba di xam ne bool bool yi mobilisé nañ ñu ngi ci ginnaaw tafatin ni nekk ci ginnaawam nii nii mosuñu ko nekk ci ginnaawam eh, combat bi ñun mosuñu gën a nekk ci ginnaawam leer jàpp ko daan ko dañuy def waaj nan juba dañuy def esat ñun béeb lu mu cher cher si taat ñëpp ku fi bëre Ama Baldé bool bool ñëw ëpp ci esat te wallahi ansim ne ñu ngi ci ginnaaw Tapha Tine te duñ bay duñ may booy ñaar dara dañ koy jàpp dañ koy daan ci kattanu suñu borom incha allah. merci beaucoup loolu leer na ah, Mansour dañuy jàpp wala. ñun ñun li ñu naqari njool bi lan la. 10 heures lañ bëgg a dugg si ci bi waaw loolu moo ñu naqari. yaa war a autoriser ñun ñu dugg si 10 bi. parce que li ñu mobiliser instant bi nii mosuñu ko mobiliser ci bu bëree ñu daan ko bu xeexee ñu duma ko waaw supporters yi mooy li ma leen di wax mooy ñu ñëw si jàmm ak salaam dal yaa ngi dégg def fair play daal li ma la ko comme ni ma la ko waxee maa ma gën a xam ñu duma ko daan ko waaw tafaati yëngal ci suuf ñu yëngal ci kaw kon càppaajoli bi càppaajoli bi dégg nga kii fi mu nekk daa xaw dëkk ñooy yarandoo ñooy mànkandoo mais sport demewul noon kenn ku nekk sa xol fi la nit ki toll la parce que man Pikine laa yaroo fa laa màggee Bawol laa juddoo nag waaye man Pikine laa màggee falaa laa yaroo xam naa kan mooy Boy xam naa kan mooy Tapha Tine may xam naa kan mooy Tapha Tine Boy lu mu indi dal na sunu xel parce que combat la bu doy waar combat bu yéeme ci leen jëm suba que le waaw ku yàlla. Mansour Fall yaa ma yëg loo fu nekk maa ngi dëgg ñàkk nag fu mu nekk nii ah sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw soxna si maa ngi lay fay. ñoo gisee combat booy ñaata baatin. waaw combat bu nar a neex rek. waaw combat bi moom moom daan ñun moom pigi lañ nekk lañ dëkk quoi te moom super ruñ kenn ku du booy ñaa. booy ñaa moom dañ koy ñaanal yàlla may rek bu jaar fu daan jaar gars yi. dafa am jàpp ne Pàcc Lambaye moo ko moom loo koy wax. ah loolu lay wax rek moom su waxee loolu moom lu waxee loolu ay wax lu ko neex rek te xam ne moom man sa na par par rek waaw. booy ñaa ko. booy na tey rek na tey rek comme ni mu daan def na tey rek su tey rek waaw yàlla na ko may ndam daal waaw na tey rek. te gaa supporter nañ def fair play rek soxla ñu xeex soxla ñu xuloo nañ dem def li ñu war a def bu jeex masaa yu ñëw bégal waa Pikine daal rek moom moo am njariñ quoi soxla ñu Mansour Fall fi ma yëgalee gis nga ko de na ko ñëpp gis mañ pro la dina cameraman yi kenn duñ kenn du moom benn la fi ayca boo ma yëgalee nag ma wàccee ana sama assurance. amul pàcc la amul caw caw sa xeer boo ñaaw moo ko moom affaire Pikine la mbaay amul bawol bawol ñun waa Pikine la ñu pàcc la mbaay xool si Pikine abare nii rek soxlawul lenn yow foo jëm yow foo jëm bu leen tas nuyu naa la waaw fay naa la noo gisee Boy Niang Tapha Tine Boy Niang Tapha Tine bu neex combat bu neex lay doon parce que bu dee ci taille euh, relance Tapha moo sut quoi mais bu dee bëre boo Niang dafa yore clé bëre yoo xam ne dafa jafe ci làmb actuellement moom la garder quoi combat bi nag am na ci sens amu ci sens buñ xeexee Tapha moo ko féete ci xeex parce que bu doon bu doon man maay conseil Tapha Tapha Tine tey arrière laa koy bëreloo quoi ci combat bi arrière gauche droit bi moom chaque jour en garde lay taxawe parce que ñun dañuy bëre dañuy fooyee bëre quoi habite à Joal la. faral combat far munu cee am parce que man bawal bawal laa mais Tapha man booy booy ñaa bu doon bëreeg sam papa man sam papa booy ñaa laay faral quoi. ko rek ñeme ko. non munu ma cee ñeme. kon ñaa. dégg la moom bu doon bëreeg sam papa. mais tafaatin da di suñ mbër quoi parce que ñun ay bawol bawol lañ. moom nga faral kon booy ñaa nga faral nanguwul. ñu teel a ñëw rek teel a ñëw buñ teelee ñëw xam nga booy yëngal yëngal bi waa c'est le meilleur gagne quoi parce que wax dëgg yàlla amuma fu ma ciy féete.